ki nga xam ne nag moom la ñuy defal bis bi ku ko mat a defal la ndax nit moom bu ñëwee ci àdduna sunu borom sarax ko mu yóbbaale ngërëmul yàlla kooku lépp lu ko waaye defal rek sa bopp nga di ko defal nga koy defal waaye defaloo ko ko ci ngërëmul yàlla lii nga xam ne moom laa ko waxal du loo xam ne dama ko jort ci moom moom moom ma ko waxal boppam ndax moo ma wax ne ma wàll du dara loolu ñu dénk la bitigub jàmbur saa boo ci jëfandikoo loo xam ne borom bitig bu yëgu ko boo légee danga am jafe-jafe ne li nga xam ne moo am solo ca àdduna mooy am ngërëmul yàlla ne ma dama ànd ak Sëriñ Fàllu ñu jëm Touba na nee na mu dem ba ci yoon mu génn ne ma sëriñ wàccal ma wàcc mu jox ma fetal ne ma sëriñ tiireel nee na ma tiire bal bi mu dem ca kaw mu ne ma ndax sëriñ man ngaa delloo bal bi ci biir ma na ko ah mbàkke dina jafe de mu ne ko bis ni ki tey yàlla mi la bind gërëm na la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm na la sëriñ tubaa gërëm na la man mii di sëriñ fàllu gërëm naa la maa ngi lay xamal na am nga ngërëmul yàlla képp ku la bu xañate ngërëmul yàlla ci àdduna rek waxut dëgg na ko ba ci man mii sax ne ko ku mënta fa bal boobu delloo ko ci biir fetal gi mun laa mënatu laa xañ ngërëmul yàlla kon euh, loolu te moomu ci boppam mu wax ak man ay wax joo xam ne am na lu mën a nettali ci mbooloo am na loo xam ne mënee su ko nettali ci mbooloo waaye li nga xam ne moo ci ëpp solo daal mooy dafa waxoon ne na booloo bu ngeen booloo nekk benn lépp lu ngeen bëgg suñu borom dana leen ko defal waaw ci lu ngeen am dee leen ci joxe ci ngeen na ngeen yëram xale yi ci yërëm jigéen ñi xamal na ma tim ne képp ku fi ñëw sama ginnaaw ne leen seen dara bàyyi la woon bañ leen ndax benn wëllëre laa amoon ci sëñ fallu benn wëllëre laa amoon ci àdduna benn kilifa laa amoon ci àdduna muy sëñ Fallou sëriñ ne man sëriñ Fallou moomu day xamal naa ko loo xam ne doomam xamalu ko ko mbokk xamalu ko ko kenn xamalu ko ko man mii itam xamal na ma loo xam ne doom xamaluma ko mbokk xamaluma ko kenn xamaluma ko ne tegoon naa ko foo xam ne teguma fa doom teguma fa mbokk teguma fa kenn moom itam tegoon na ma foo xam ne tegu fa doom tegu fa mbok tegu fa kenn ne ma li lay li may li may firndeel loolu mooy man rek la mayoon ma fekk ko fu mu mën a nekk ci àdduna ca du am añ la ne ma même bu duggee xalwa sax man rek ma amoon droit fekk ko fu mu mën a ne ne ma man la wóoru woon ci muy lekk kawari boppam yi man la ci wóolu woon lépp man la ci wóolu woon ne ma président Senghor doonoon ko coup d'état boo xam ne biñ ko koy def sëñ Fall dafa duggoon xalwatu bi ñëwee Touba ku ni wax daam euh, daam Dramé la yebal ak rawaan Ngom nee bi biñ ñëwee egsi ñu ne sëñ Fall dafa dugg xalwa ñu ñëw yee si ma sama kër ne ma président moo yónnee ci sëñ Fallu ci dafa dugg xalwa nee na keroog bu may dem ci sëñ Fallu damaa jéggi permis fekk ko ci biir néeg bi bi ma duggee fekk ko fi muy duggee xalwa mu ne ma sëriñ lu xew ma ne ko sa waa ji la ñuy coup d'état mu ne bu ngeen demee nee na ko xaddu dam nan ma xaar ci barak bi nee na ñu xaar ko ci barak bi mu génn ñu nettali ko mbir mi mu leen bu ngeen demee nee ko xadd damm nee ko na wax ci rajo bi rek ñu ne ko ah rajo bu muy waxee kay moo fi amatul ndax rajo ndakaaru nangu nan ko nee na fi ñuy waxtaane noonu rek télégramme egsi ñu ne ko rajo ba ca Rufisque day nangoogun ko tëngéej nee na sëñ Senghor wax ci ñu fob ngànnaay yëpp wéer ko nee na ca jamono yooyu moom loon na Senghor ci aw jiwu lu mat juróomi million ci xaalis nee na ci la ko Senghor baalee waaye ci ko Senghor baalee kon xam nga ne euh, amoon na cër bu mag boo xam ne doxoon na digganteem ak Serigne Fallou doxante diggam ak bokkam yi waxuma la dara waaye li nga xam ne jëf na ko ci silatu rahim dox ak mbokk loolu mosuma dégg ci taarix nit ku ko ci def sa alay Serigne daal boo ko bëggee xam daanaka da ngay xool Serigne Fallou na meloon rek ndax lu ko bëgg roy ko ba nuru ko ba mujj muy moom ci léppam sëñ Fallou rek la bëggoon waaw ba ba ni fi jógee sax nee na ma. xetu laaj sama mbakkat yi nga defan damaa soj ma xetu laaj ko sëñ Fallou moo ma jël si maa ngi moom ñëw bokk kër gun jëm yomal xiyam ne ma kër xetu laaj ko ñu sikkim bii mu andi ci néeg bi moo jàpp sama mbakkat yi ba mënatuma nooyi waaw kon euh, amoon na cër bu mag xamal na ma tem ne ma teraangay àdduna ju ma am kaamil kaamil bu ma sëñ Tuubaa joxoon ci laa ko jële ne ma kaamil boobu tam sëñ ma roqee bu sa moo bindoon teere suuf bi maam Cerno Birahim bind teere kaw bi mu ne ci ak lakk laa ñàkkee kaamil boobu ne ma tuubaa gii nag su ma neexee ma def fi yaramu neen dox ci mbedd mi ndax fu ma def yaramu neen rek mos naa fa jaar def fa dara lu baax waaw wa wax ci wax wax ju gudd gudd joo xam ne lu lépp loon mën a wax ci mbooloo xam naa ne daal sëñ Fallou tegoon na ko foo xam ne da ba bëgg ko ba dimbalee ko ne ko sëriñ de dimbali wàllu yu ndaw yi muy njaboot di sëñ Touba ndaw gi nga xam ne muy sëñ Saaliwu sëñ Abdou Xaadir sëñ Blaat mu seq ak ñoom lu bari ba sëriñ Saaliwu mii waxal na ma boppam ne ma yéen da sa bàyyi day sàllaaw bokk na ci ñi ma gën a xaral ci àdduna moom wax na ma loolu ne ma bokk na ci ñi ma gën a xaral tool ci àdduna kon yéen bu ngeen booloo lu ngeen bëgg rek da ngeen ko am ndax booloo mooy yërmande yàlla ci ab mbooloo buñ bëggee egg ca kanam lépp luñ bëgg rek nañ boole kon ñu ngi leen di sant bu baax yéen ñi nga xam ne yéen yooyu sëñ Maamun ak ñi nga àndal ak sëtam yi nga xam ne bu doon yéen moom dara du ko jar ndax li ngeen ci man ak di ko ci def euh, kenn ci ñun mënu ko ci wala sunu jot may mayu ko ko kon bu egsee fii yéen a tax ci xam naa ne lu ngeen bëgg mu egg fa rek mën na faa egg ndax képp ku ne jox dara ji fii ci dëkk bi di ko ci ci liggéey kenn rëwu ci alaaj sëriñ bi bu dee ci jikko kenn rawu ko ci bu dee ci tabe kenn rawu ko ci bu dee nekk taal bi sëñ Tuubaa kenn rawu ko ci ndax sëñ Tuubaa sëñ Fallou ko seeroon na moom murid saadix la ba am na kilifa yu mag boo xam ne ñëw na sëñ Fallou jox ko tur ne ko tuddee ko sëriñ mu defe ne e, mu ne ko bàyyi ndax e, mu am sëriñ bu soo mu ne ko bàyyi sëriñ sa ilimaan ngay wax wala badoon bàyyi sëriñ mu ne ko da mbaat da ngaa defe ne sa sëriñ yooyu ñoo gën sama sëriñ mi nga xam ne seeroon na ci moom ak murid saadix mu nekk ci suuf si def fi jikko ju rafet yoo xam ne lan alxuraan doon tàggee yonent bi naan ko law kunta faddan xalisal xal bi lan faddu min xawlik daanaka noonu la meloon xamewutoon doom xamewutoon jarbaat xame ñëpp la bokkoon yemale amal njariñ ñëpp am kerse ci ñëpp nekk taalibe boo xam ne sëñ Fallu rek la gëmoon teg ko ci kanamam doylu ne ndax bu doyluwutoon tey kër gi kenn du fi mën a toog kon Tuubaa gépp yéen a koy moom waaye doylu moo tax mu bàyyi mu mut këram gi mel nii kenn du ko dégg fenn nit nag mën naa jëf yonente bi sallallahu alayhi wa ñi fi bàyyi rek ñoo am fulla ba wane ko ba jaay ko ba mu toll nii kenn ku fi jóge nag ña ngi fi bàyyi rek ñooy am fulla jaay la wone la ndax ba jaay ko moom dafa yomb ndax nit ku am jikko yu baax ak yu rafet jaay ko sax day lu war ndax ku nekk askan war naa wane kooku ngir nit ñi nga xam ne dañoo bëgg lu baax di ca roy nit ñi nga xam ne dañoo bëgg a moytu yenn jikko yi di moytu yenn ci moom waaye bay sëriñ moom dañ koo jege ba nga xam ne mënuñ coo wax ci moom lu bari waaw waaye xam naa ne di ko waxtaane daal dana indi yërmande yàlla ci kaw suuf ndax way nde zikri saalihiina tanzilu rahma kon loolu rek la ñuy gàttale sunu jotaay di ñaan yàlla dafa leen xéwal dafa leen tawfiix bi xurmatal xabib Muhammad alayhi salaatu wasalaam boo ko seetee ni ko sëñ si dinaa waxe man euh, gis naa ci samay samay sama sama kayiti wajur sëriñ Moustapha mu nekkoon magam gisoon naa ci ay ay kayitam rek kayit boo xam te ne bii ma nga ca bind lenn ci turi bopp yi bind ci ay lim ci tur ay ñaan yoo xam ne dana diw na nga def nangam diw na nga def nangam diw na nga def nangam ñu bokk ñaanal alaaji sëriñ ngir nangam ak nangam ak nangam kon loola ku ku mël na nga war a mel ca biir bokk ya nga yàlla yàlla boole doo doxe wow doxin ci seen biir ba ñuy am yéene ju toll noonu di ko mën a jëfee ci sa jëmm yaakaar naa loola rek secret biir la boo xam ne day jàngale rek ne bay sëriñ yaatu woon na yaatu goo xam ne euh, nii ko euh, sëñ Sidina waxee jëmm ji ko ji ko doon seere doyoon na sëkk ci seere muy sëriñ Falilu waaw ndax kum seere ku nekk tey ëllëg war naa dal sam xel war naa yokk sa taxawaay mas na ànd ak moom ñu jógee ci barab suñu Falilu bi di ñëw mu ne ma sëriñ ma ne ko Mbàkke mu ne ma kër gu ma romb ak lu mu rëy rëy rëy ak lu mu xumb xumb xumb gent ba rek laay xool nga xam ne loolu day wanee ne rek maanaam fi mu jaar ci àddina dara lu ko ci mën a lu ci mën a jaaxalati maanaam nekkatul ci jamono mu doonoon koo xam ne soo seetee ci ay tërandoo yi ko yàlla defal rek da nga ci xamee jikkoom ju rafet ak yaatalam gu yaatu turandoo xeet wu ne am na bu dee séeréer la bu dee pël la bu dee leneen bu dee leneen bu dee leneen ba ci biir bokki boppam yi fenn fu ne tuddee nañu ko fa am bay sëriñ loola la ko waral mooy jikkoom ju rafet ja ak melokaanam yaatu wa loolu moo taxoon nit la woon koo xam ne daan jàngale bu baax a baax ndax biir kër sëñ Fallu gi mu nekkoon nii nii sëñ si sin naa wax rek daa xooloon sëriñ Fallu ni ko yàlla melal bi mu ko taamoo ci biir askan wi yëpp taamu ko ci bokk yi ba indi ko ci boppam ndax keroog bi mu wàccee ab liggéey bi ñu ko dencee fii ci armée bi ba ñëwaat fii ci kër gi sëñ Modou Sofel lu toog fii ci kaskaram bii kaddu yi sëriñ Modou doon wax man mii maa ko doon jot li mbooloo mi waaye keroog sëriñ Modou dane alaji sëriñ mii dem moom laa xam ci koo xam ne sëriñ Fallu da ko woon ne ko dama bëgg nga ñëw yor ma dal ko ne loolu mosu koo wax doom mosu koo wax mbokk mosu koo wax kenn alaji sëriñ rek ko a wax bëgg nga ñëw yor dal ne kaddu sëñ Fallu gam ko ne woon damaa bëgg nga ñëw yor ma tax na kenn mënu ko kenn mësu koo mën a yor moo mas di yore ba fii dal ne sëñ Lamin nag nii mooy doomam ju mag ak gone yi topp ci moom ñi am na ñaari jabar ñi am na ñett ñi am na waaye kenn mënu koo yor dal moom rek moom mooy yore waaye kenn mënu koo yor dal ne ba tey jii barab bee ma ko jox muy barabu sëñ Fallu bee mu toog sax ña fa nekk ñëpp moo leen yore su bëccëg jotee mooy ànd ak ñoom indi leen ci kër gi jox leen ay xéewal jox leen ndox mu sedd ñu naan jox leen attaaya ne ba gont jot ñu àndaat delluwaat fañ nekkoon ne day yore rek waaye kenn mënu koo ndax kaddu sëñ Fallu gam ne ko woon damaa bëgg nga ñëw yoram kon loolu melokaan la yoo xamante ne bii yaakaar naa jamono jooja <coughs> nee nañ sëñ Fallu watiru fas la yoroon waaye watiru boobu fu ma sa jëm moo ko ci yóbbu ba nuy oto ñëwee keroog ba oto ñëwee nee nañ sëñ tey ba indi oto ba ñu wax waaye dem ñëwee da ko ne ana kayit yi mu ne ko mu ngi nii mu ne ko indi ki ko war a yor ngi fi sëñ Modou àgg na ci loolu keroog ba ba wax ne sax permis bi mi waa ñu sot ngir ñu sotti jiwaat permanent boobu ngir mu mën a nekk sëñ Fallu yoral ko oto boobu kon taxawaay boobu mooy jikkoom mooy melokaanam mu yaatu lool doon ko yaatu woon dënn uufoon ñëpp xàmmee wu doon xej ak seen noonu sëñ sëñ Sidna waxee ne sëñ Fallu daf ko daf ko bi mu ko jëlee taf ko ci boppam moom it daa nampatal ci sëñ Fallu rek sëñ Fallu nampatal ko ci boppam melokaanu sëriñ Fallu daanaka boo doon teg tey di wax loo ci wax rek jàllale na ko ci bay sëriñ waaw <coughs> së euh, yi ne woon ci biir kër gi kër sëñ Fallu soxna yu mag yi newoon ci biir kër sëñ Fallu am na way wuñu daan way woo xam ne la ko waraloon rek mooy nekk gis sëriñ bay sëriñ nekkal sëñ Fallu ba sëñ Fallu nekkaloo ko ci ñoom waaw moo ko dañ daan wax naan sëriñ busum aliya bàyyi lamin tuut muy sëñ lamin mi toog waaw gannaaw bukki mbaaroo te yaa di sunu mbaar nga xam ne gannaaw sëñ Fallu yow lañ ko doon wax te boobu njabootu sëñ Fallu gi ci biir këram sëñ Fallu yor leen ñoo daan wax loolu kon melokaan googu mooy wane ne nampatal gi sëñ Fallu di nampatal ci sëñ Fallu sëñ Fallu nampatal ko ci boppam loola mooy liggéey mooy li am daanañ ko waxee naan ñoom ñoo ñu daan wax loolu dañu daan wax naan sëriñ Bisoom Aliya wataam ba du paan ndax nee nañ la tax oto bi du paan mooy oto bu bees la yor <laughs> du yor màggat xeet yooyu yëpp ay ay doxin laa ci waxeen yoo xam ne da doon jàngale rek jikkoom ak melokaanam waaw yaakaar naa fii ci kër gi ci njabootu kër gi muy soxna yi ne ci kër gi loolu sëñ bi wax ne wóolu woon na ko ci léppam ci jëmmam am na njaboot gi ne ci kër gi am na soxna soo xam ne andi na ndékki ci kër sëriñ Falilou andil ko bay sëriñ ndax daa a xëy ñëw mu mu topp si ko bi mu ñëwee jox ko ndékki li bi mu ndékkee baagal lamb ay poosam bëggoon koo jox ñaar téeméer lan ne daa lamb lamb gisul këy du ndaw ne fi sëñ di fi la fekk sëñ Fallu fab loxoom dugal jox ko soxna soosu mu dem mu dellawaatal ko sëñ Fallu xoolul rëfut lambut laalut doy loo nit mu tawee loolu ñun ku ci yëkk sa mbubb su ko nit dee romb ket yaa ngi xool ba xam dana laal mbubb même de wala dana ko waxuma laa nag fab loxo dugal ci biir poos moom waxuma laa poos bi nga xam nga soxla nag moom loolu lépp ay jàngale la yoo xam ne da doon wane ne sëñ Fallu da doon wane ne amul frontière sama diggante ak moom lu mu bëgg a def na ko def ànd na ma ak euh, Serigne Moutada ñu dem fii ci euh, Darou Khoudoss fekk fa ku ñuy wax Serigne Ibnu Amar ci ñu Serigne Touba yar la bokk ci naari Kajoor yi la bokk sëñ Donga Bayti mooy mooy mooy waajuram bi ko bay euh, ne ko sëñ bu sori tudd sëñ mu ah, sëñ bu la tuddee ma ne ko bàyyi sëñ bu sori mi nekkoon kër sëñ mu ne ma toogal ma wax la ci sa tëraloo ma toog mu daal ne dama am bis ma ñëw ci Serigne Falilou ne ko dama bëggoon ku ma bindal benn lettre boole ma ak banque bi ñu lebal ma xaalis lettre recommandation boole ma ak banque bi ñu lebal ma xaalis ne ma daaneel sama cadre mu ne xanaa kon da ba Serigne ñëw ba xam mu ne bi bay Serigne ac xëy si jox ko loxo nuyu ko rek da ko ne ibnu mii de dafay ñëwoon di am lu muy wax àndal ak moom ba xam nee na bay Serigne jël cartable bi daal di ànd ak moom ñu jàll ci buntu wanagu Serigne bi dugg euh, kees gi ci gannaaw ne bay suuf dal ko ne lu mu doonoon mu ne ko damaa bëggoon ku ma benn bindal benn lettre recommandation boole ma ak banque bi ñu lebal ma xaalis nee na bay sëriñ dal di génne paquetu 100000 bu bees fekk ci poosam teg ko ci kawam fab kayit bi teg ci fab dig bi teg ci bëgg koo bindal seg li wax ne bi mu ko bindal li wax dal ko ne ñaata nga wax mu ne ko damaa bëgg nga lebal nga bindal ma ñu lebal ma 300000 ci yooyu jamono xam nga 300000 boobu jamono ba woon ne bi mu ne 300000 rek ne bàyyi sëriñ daa tegaat big bi ci kawam daal di lambaat poosam génn ñaari paquet ñaar fukki junni ne boole ko ak paquet bi mu tegoon ci tànkam muy juróom-benn fukki junni ne mu tàllal ko ko dal ko ne am saa boo ko lijjantee andi ko moo gën ñu lay boole euh, euh, banque bi ñu lay sonal xool boobu yërmande ak boobu yaatu ak boobu jëf ne bi mu ko defee bañu ànd maag moom dugal ci biir nekk sëñ bi waxatu sëñ bi dara daa àgg jël place mooy wane fi ni meloon ci joxe nga xam ne maanaam dawul denc dara dara du fi des lu fi ñëw ak lu mu bari bari mën na koo joxe ba mu tàkk loolu sëñ Fall la ko jëlee ndax wax moom waxal boppam ne ma daana daanañ xëy jigéen ñi man lañ daan laaj li ñuy demee marché daanañ xëy ñëw laaj ma li ñuy demee marché ma ñëw taxaw ci moom mu ne ma doon ma ko jigéen ñi dañoo wax ne daa mel dañoo dem marché ne mu naan ne ma xanaa kon dañ may muñal ndax dara dara néew fi de li fi newoon li fi ñëwoon li fi ñëwoon lépp dem démb dem na xanaa kon dañ may muñal ba naaj lu fi njëkk a ñëw waaw kooku du denc dara muy sëriñ Falilou loolu nag moom la namputal bay sëriñ ba bay sëriñ nanguwutoon a denc dara ku mu war a dimbale ku ne du xaar ci yow nga wax ko ndimbal li sax su waree ci yow rek te jaadu da lay defal ndimbal loolu te doo ko yëg melokaan yooyu la doon dund makaarimul axlaax dëgg la ko yàlla defaloon mu yaatu woon lool ak dënn xajoo woon ñëpp di dimbale ñëpp te nag yaakaar naa ne euh, man lam yaskuru naas la yaskurullah kuy déglu cant yi ñuy sant bay da nga xam ne ko amoon yàlla la ndax li wax léegi ci moom sëñ Fallu daana def saa yu bay sëriñ toogee ci jotaay bu jóg wan leen gannaaw bay dem sëñ Fallu day di wax ne te fii ngeen koy gis kat mbaa yàlla la maanaam yàlla ku yàlla tuppul dara la kon loolu mooy jëmm joo xam ne sëñ bi seet na wecc ci àddina seet na wecc ci ëllëgam seet na wecc ci ñi mu nekkaloon ci jëf jum war a jëflante ak diggante doom wala soxna wala mbokk wala xarit wala am di jàmm sëriñ bay sëriñ jëflante woon na ko ak yow kon melokaan yooyu mooy jikkoy bay sëriñ makaarimul axlaax la am yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ko saa borom di tagg tëggiwu ko askanam tëggiwu ko dara wa innaka la ala xuluqin hasim rek la wax jikko ju ràggu jooju moo tax bi mu ñëwee mu ne suñu borom damaa yebal ngir ma mottali jikko yu rafet yi li utam mi ma makaarimul axlaax kon taxawaay boobu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon defee mooy li bay sëriñ nekke woon mooy li bay sëriñ doon dund jikko ju rafet ak jëf ju rafet moom la doon jàngal képp ku ma sa ànd ak moom bu ñu tuddee ci ziar bi xalifa bi sëriñ Mouhamadul Amin Bousso moom alaaji sëriñ di ko ñaanal bu baax suñu borom yàggal ko fi te wéral ko te mu yàgg suñ kanam lool lool ba lépp lu mu naan liggéey sëriñ bu sa sëfoon mu àggale ko ci barkeb sëriñ Touba. xam naa ci programme bi euh, kaamil yi nga xam ne jot nañ koo jàng ci biir koor gi ak bisu tey bi ñi nga xam ne jàng nañ fi kaamil yi mu mel ni Baye Abo Bousso jàng na juróom-ñaari kaamil euh, Serigne Ibrahima Ndiaye jàng na juróom benn kaamil Baye Cheikh Ndiaye jàng na Baye Serigne Ndiaye jàng na juróomi kaamil sëriñ Mouhamadou Mamoun Bousso jàng na 19 kaamil Serigne Abo Mbacke moom soxna Bali jàng na ñetti kaamil Serigne Abdoul Baaxi Bousso moom itam jàng na ñetti kaamil waaw ah, Serigne Abdoul Lahad Bousso mu mag jàng na ñeenti kaamil sëriñ Mbaye Ndiaye jàng na juróom-ñaari kaamil ah, bisu màggal gi ñu jàng ci juróomi kaamil Serigne Maam Cheikh Bousso moom it jàng na fukki kaamil bi ñu ko boolee lépp 69 kaamil la juróom benn fukki kaamil ak juróom-ñeent waaw mu mel ni tamitam mbokk kilifa yi nga xam ne jot nañ fee teew ci bis bi ñu ci jiital rek soxna ma Awa Mbacke moom sëñ Fallou mi nga xam ne mu ngi ci jataay bi eh, di ko ñaanal baax suñ borom yàggal ko fi te ànd ko wér ak Serigne Bassirou Mbacke moom Cheikh Saliou moom itam moom mi nga xam ne mu ngi ci jataay bi ñu ne di baax suñu borom guddal seenu fan waaye sëriñ Modou Mamoun Mbacke moom sëriñ Fallou teew na fi ci bëccëg gi ak sëriñ Cheikh Awa la moom seex moom Mamadou Fadal teew na fi it moom sëriñ Modou di def ay seede yu am solo ci ci alaaji sëriñ xam naa bu loolu weesoo site bii nga xam ne mooy ndindi acte ku ko ci ku ko ci rek da nga ko ci gis incha allah seen seede yi ah sëriñ Mbacke Abdoul Baaxi Musamba sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Masamba moom itam teew na fi sëriñ Moustapha. Baara Mbàkke moom suñu ëllëg Baara moom itam teew na suba gi sëriñ Muudu Ndiaye moom sëriñ Aliyu Ndiaye ak sëriñ Muudu Naar Buso moom itam te Gede xalifa sëriñ Aliyu Buso moom it teew na fi ak sëriñ ñu gën koo miin sëriñ Alhaaji Ñanga waaw ak sëriñ Buso Buso moom maam Baye Moustapha Buso Xabsat moom itam sëriñ Buso teew fi ànd ak ak rakam sëriñ Jiili moom sëriñ Baara Buso moom itam teew fi Euh, sëriñ maam maamun Bousso soxna maam Bousso Mbàkke moom sëriñ Abdul Lahat moom itam teew na fi kon mel na ne kilifa yooyu teew nañ fi ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi leen ci dolli di leen sant baax te di leen gërëm xam naa di sant itam euh, bu baax a baax comité bi nga xam ne ñoo doon piloté màggal gi euh, ci commission yi nga xam ne tegoon nañ ko nga xam ne aw na yoon lool xanaa buñ ci tuddee sët yi buñ ci tuddee si Moustapha mi nga xam ne moom suñ soxna waalo mi nga xam ne mooy président d'honneur bi teg ci Serigne Mohamed Diaw mi nga xam ne mooy président coordonnateur général bi nga xam ne moom lañ ci teg mu jiital sët yi waaye section yëpp dañ leen di sant baax a baax waaw xam naa buñ ci tuddee ku mel ni Serigne Basirou Bousso ak sëñ Saliou moom sëñ Mamor mi nga xam ne ñoom lañ féete woon ci wàllu kiisiñ bi sëñ Mohamed ah, mi nga xam ne moo ànd nag soxna yi féete ci wàllu collation bi ak ku mel ni Serigne Lamine Bousso ak sëñ Abdoul Baaxi Serigne Cheikh Maam seex Bousso ñi nga xam ne ñoo féete woon ci wàllu culturel bi ak accueil bi. ñu ngi sant mboolem comité yëpp sët yëpp moo xam góor la wala jigéen la di ñaanal xalifa bi rek mu yàgg fi loolu te ànd ko wér di wax na lii nag ab tàmbale la ab tàmbale la boo xam ne dañoo fas yéene insha allahu rabbi mu wéy ah waaw suñ xaadim waaw sëñ Xaadim Mbàkke moom sëñ Moustapha imaam tamit teewoon na fi waaw waaw moom soxna sëñ Mamoor Jaara bu ko defee li jublu ci lii nag maanaam li ci jiitu nag mooy njaboot gi dégg ngeen kàddu alal sëriñ Bousso yi sufóor yi seede yi naa Sidina Bousso def dégg ngeen li ci Baye sëriñ Bousso wax def dégg ngeen li ci kilifa def léegi li ciy des nag mooy ñun ñu jéem a topp ndigal loolu te su ma juumut sëñ sëñ Cheikh Awa Balla li mu wax fii sànq ci bëccëg wax na ne bi bi sëriñ nelawee ak bi ko mujjee gis mutul ñaari fan bi mu ñëwee ci Baye Serigne Baye Serigne dana ko sëñ Fallou léegi la fi jóge kon kooku am am na lu mu xam am na am na fu mu àgg itam kon bu demee it ba ne njaboot gi nañ nekk benn bu ngeen ko defee kat ku leen songu ma daan leen li ëppoon solo maanaam ci nit muy dem di loo ko sonn nag di tës tësi mooy nañ fexe ba nekk benn te xam ne suñu gàllaaj la goo xam ne ñun ñëpp buñ ko defee rek jàpp naa ne kenn duñu song ba ba dañu daan képp koo xam ne nag jéem ngaa ber sa yoonu bopp di dem leneen lu la ca fekk na nga xam ne yàlla yaa yaa topp ndigal waaye damaa jàpp ne ànd bi même bu fekkee ne man Mamoune Bousso neexuma sax war naa koo def ngir bëgg-bëggum alaaj Serigne bu Sufoor waaw Serigne Moudou moom Serigne Baara Niang moom itam waaw teew na fi di sant itam mboolem ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci waañ wa jigéen ñi doon sonn lool ci wàllu ah, berne yeeg yu mel noonu ak taxawaay yëpp di sant daara yi fi teew Serigne Moudou Bousso nga xam ne daaraam teew na fi ak ah, man Mamoune Bousso sama daara ci kaamil yi ak sëriñ Mbaye Ndiaye ah. mi nga xam ne moo jiite kaamil yi nga xam ne chaque semaine ajuma gu jot dañuy wàcceel àlla sëñ Bousso ab kaamil ci groupe bi te loo xoolee at mi 52 semaines la kon 52 kaamil wàcce nañ ko ci at bi yoo xam ne bokkut ak 69 kaamil